actualité nationale bi moo yëngal question bi nga xam tey mooy la campagne nationale de lutte les seize jours d'activisme pour lutter contre les violences basées sur le genre comme ni ñu ko waxee léegi am na ko dugal sànq actualité dafa nekk ci miis yi actualité dafa nekk ci nga xam ne yàlla dafa dogal ñu defal ay viol ñàkk seen bakkan violence te ñu koy wax ba góor rey ay njabootam parce que violence moo tax kon defe naa fii dafay tey ne si fii lancé cette campagne defe naa du loo xam ne luñ tàndale la ce problème ce fléau bi am Sénégal ci àddina yëpp la am lutter contre les violences ñu war ñun en tant que jigéen waaye dafa warta góor ñi xanaa madame la directrice régionale de ONU Femmes na ko fii lañu lancé woon campagne le 8 mars 2018 de la campagne Il faut Chi son excellence monsieur le président de la république ñu def ko champion de la lutte contre les inégalités entre les hommes et les bu baax nag def si jóg yu bare tey malgré son agenda très très chargé mu am sommet des chefs d'État pour que góor ñi taxaw ñoom kat participation dans la lutte contre les violences basées sur le genre kon ñun gàcce ngalaama waa Sénégal gàcce ngalaama monsieur le président de la République li nga xam ne tey daf ñu accompagner ci li nga xam ne ñu moom la ñu xeex xeex boobu nag dama ci lancer un sursaut national appel national pour que ñëpp mobiliser campagne de forêt 365 365 ñu war a lutter contre les violences faites aux parce que nag réew mi jigéen ñi ci am seen wàllu rëy war a taxaw sur tous les plans ci économie bi ñu am ci wàll bu rëy malgré ñu nekk dans l' informel président de la République def ay programmes yoo xam ne bu ci nekk dafay renforcer l'autonomisation économique des femmes. dafay wax ne fléau yu bari yoo xam ne dafay naxsaayal ak ak yelleefu jigéen bés bi ñu lutter contre la pauvreté dem tout ci développement rek dina am yu bari yoo xam ne dafay dañ jaral ñu coow coow lu bari loolu nag du ay wax daf ko jëfe mu am fii programme yu bari yoo xam ne dafay renforcer le leadership des femmes parce que jigéen ni mu ko waxee léegi rek dafa naa ne li am solo mooy wax na ko bés bu yoree présidence Union africaine dafay dugal aussi programme bu am solo mooy l'éducation des jeunes filles et je pense que levier important li wax yëpp wax naa ko démb bu ñuy inégalité entre hommes et femmes bu fekkee dafa am c'est parce que góor ñi wax nañ ko léegi je pense que la c'est Union européenne il faut deux cent et quelques xaw ma années pour ñu rattraper entre les hommes et les femmes du point de vue économique kon kooku xam nga boo bëggee xëccoog moom ay place dafay jafe. bala nga naan dañ fay nekk tey bu fekkee dañu am benn post bu feeñ jox ko benn nit góor taxaw jigéen taxaw ci gën a jàng lañ koy jox loolu tax ñu war renforcer l'éducation des jeunes war leen jàppale dimbal leen ba dans les filières scientifiques sax ñu ne dans la santé présent def ci ay jéego yu am solo solo pour renforcer les femmes pour jàppale leen indi couverture maladie universelle indi ces projets importants pour la protection de la femme de la mère et de l'enfant ñu améliorer la fexe ba la mortalité des femmes des des mères wàññeeku bu baax Sénégal te loolu def na am ci résultat yu appréciable yooyu yëpp ay la yoo xam ci war a jàpp pour jigéen ñi góor ak jigéen ñu mën a yëkkati yëkkati jigéen ñi ba ñu nekk au même niveau que les hommes tey nag li nga xam ne moo la ñu xeeti Sénégal mooy violence suñu waxee violence wax viol bu ñu waxee violence wax violence psychologique wax violence sexuelle wax toute forme de violence yoo xam ne parce que forme de violence benn violence yu bari moo am nga ne sa biir kër sax sa jëkkër war laa jox dépense yor xaalisam joxu la ko loolu violence la sa kër sa yaay feebar nga war faa dem sa jëkkër nag doo génn kër gi xeex bi du ñu rek ñoo ko war a xeex fii Sénégal il faut ñu comprendre ne pour ñu xeex ñu ñëpp dañuy wax même langage ñu jëm ci même yoon du ñun rek c'est pas l'état seulement c'est tout le monde qui doit s'engager l'état du Sénégal doit s'engager la société civile doit s'engager les organisations féminines des femmes doivent s'engager pour lutter contre cette violence waaye nag bu ñuy wax dañuy lutter contre les violences aussi ñu indi la loi criminalisant le viol et la pédophilie dafa war a nekk xeex boo xam ne bii dañ koy xeex mu bañ am coloration dañ koy bañ a xeex dóor doom làkk doom moom la ñu nangu fii Sénégal yi il faut que ñun ñu xam fi ñu jëm ak ñu bëgg il xam fi ñu jëm ak bëgg lan la lan la ñu bëgg li bëgg mooy fexe ba lii ku teewul tam wàññeeku bu baax a baax mu am fi ay cas yu baree bare yoo xam ne dañ ko am Sénégal soxla ku nekk xam nga di xew Sénégal kon nañu jàppande ñun ñii jigéen ñi nañu wax benn baat nañu jëm ci benn yoon nañu lutter contre les violences nag def ci rek muy principe wax dañ ko dox ñu bañ a xool ak gauche bañ a xool à droite bañ a tourner gauche tourner droite nañ jaar ci yoon bi dem pour lutter les ak koo mën a doon ak koo mën a doon ñu sanctionné la di remercier ñëpp di wax ne jéego yu am na sur les droits des femmes plusieurs lois ont été votées bu si njëkk mooy parité en 2010 président moo ko promulgué moo ko la rendre la loi effective tey góor ñi ak jigéen ñi tey boo demee dans les institutions ku ci nekk rek fu góor toog jigéen na toog na fa waaye dafa desaat ba léegi dem ci élection locale les listes sont paritaires mais les bureaux ne sont pas kon suñu combat la ñun en tant que femme wax nañ ko léegi de il faut que ñu ki ñuy voteel Oulimata moo ko wax defe naa ki ñuy voteel candidat bii dem di ko war a voteel na fekk ne mu jël suñu préoccupation en charge waaye aussi dañu fexe ba dans les instants de décision aussi ñu jigéen ñi toog ci c'est important est c'est une lutte qu'on doit mener ñun en tant que femme ñu wax ne aussi ak ak yelleefu jigéen ñi jigéen ñi nga xam ne dañoo subir ay mutilations sexuelles ñi nga xam ne ñoo nekk dans les plus dans les points les plus reculés du Sénégal ak itam fii Dakar léegi sax dafay am ay cas yoo xam ne dañu fi détecté yoo xam ne dañu def excision ñu vraiment ñu jàppale ñu sa plaidoyer fort la on doit mener sa plaidoyer parce que jigéen nag boo ko enfreindre ci yenn liberté du mën a éclore potentialité te jigéen ci am réew mu taxawul nu war taxawee. doon na mu war a doon ñu bàyyi ko mu libéré wu mën la mu nekk defe naa pour réew moom jëm kanam dafay jafe kon on ne peut pas avoir développement sans que les femmes soient au cœur programme de développement de notre pays et cela je pense que la la compte depuis très longtemps dafa ne dans le plan Sénégal émergent l'axe capital humain bu ñu capital humain nag defe naa ci wax Sénégal jigéen ñi si jiitu ndax ñoo ëpp mu tegati ci leen tamit dama place sama programme sama mandat bi dama ko placé dama ko teg su les pour sur la sur la sur la promotion de la femme et aussi des jeunes aussi pour jàppale leen pour que jigéen ñi ak xale yi jëm ci kanam. tegati lu am solo aussi parce que président du bàyyi jamais askan wi parce que askan wi moo ko ñor mu ne ndaw yi parce que li ñu wax yëpp violence yeeg viol yeeg yëpp boo gisee ñu ci gën a tee bu ñu di sat ci ci gën a ëpp solo. tey xale yu jigéen ñi ci ñoo ci ñoo ci ñoo ci ëpp ñu violente en passant mooy bu baax mu jël un programme bu am solo muy ndaw mi defe ko wax parce que madame le ministre mi toog ñu ne 75 pour cent de la population est jeune taxaw bi ñu war a taxaw dañu fexe ba indi 450 milliards 150 milliards chaque année dédié au financement des femmes et naa ci tënk rek ci li mu def ci askan wi ci la bokk. kon ñun ñoo ci des ñu jigéen ñi nañu bokk ñu jëm nañu taxaw ba suñu ay droit ñu moom ko ni ñu defoon en 2010 ba fexe ba voté la loi sur la parité ñu ñoo ko xeex ce plaidoyer fort ñu ko porté dans toutes les questions concernant la promotion de la femme et le genre de la femme ñu ñoo koy porté kenn ko porté suñu bopp kon vraiment je lance un appel à toutes les pour que violence yi na ci réew mi ñu ciy wax di ci jëf aussi mu am am solo tam famille parce que direction de la famille wax na ko la famille c'est un cadre un lieu boo xam ne bi dañ ci war a def loo xam ne dañ war a taxawaay boo xam ne famille daf ko war am pour éradiquer éradiquer si famille parce que nag xew dañ ko war a teg fële parce que nag am nañ outil yoo xam ne ñu permettre léegi pour koo am problème nga mën a dem ci nga war a dem je félicite en passant l'association des juristes du Sénégal yi nga xam ne ñoom ñu am petit dëkkuwaay yi nga xam ñoo nekk ci centre SEDAF yi ak nekk dans certaines localités du Sénégal nga xam ne ku am jafe-jafe ci victime nekk victime de violence da dem si ñoom jàppale la accompagnement juridique psychologique et un accompagnement sanitaire kon maa ngi remercier en passant l'association des juristes du Sénégal mais aussi il faut tam ñu tamit ni ñuy nu ñuy xayma mesurer plateforme cette plateforme web SMS elle est importante parce que li te xamoo ko mënoo koo xayma mënoo xam naka la mënoo xam kan moo am ak kan moo amul ban dëkk la gën a amee da ngay am jafe-jafe mu xeet moo tax tey jii ñu ànd collaboration avec l'université Gaston Berger pour mën a teg sa plateforme boo xam ne bii képp koo xam ne dañu nekk victime de violence ñu mën a recevoir ci plateforme boobu xam sa jafe-jafe la jàppale la avec la collaboration de l' administration territoriale donc dis wax ji gudd na mais il fallait que ñu wax ñu nga xam ne sentir moom lañ bëgg toujours rek li may waxaat nañu bokk la ñu wax nañ yëkkatandoo nañ tegandoo nañ jàppalante ñun suñu biir parce que c'est ça important balaa ngay naan danga fay nekk balaa ngaa jàppal balaa kenn duñu jàpp ñu war a jàppale suñu bopp rek te ñun nag ñoo war a xool ñi nga xam ne ñoo yor jàppale leen li nga xam ne ñu am problème ñu fexe ba li nga xam ne mën na dal seen biir te du leen dalaat kon maa ngi sant bu baax di gërëm ñëpp ñu ngi merci ñëpp